Uras Info Ribari Gao Tewor Uras Info l'info à temps réel Uras Info Djanga du xóot te notre force le traitement de l'info koro gay moodum gech o haj ibrahim gay tay jile ci lañu tollu ci wiras bu mujj bi fukki fanu goral ci safara mo dess ci koorug ren gile o DG Yar ci Dal dina ka perte tax mu reccu nar dabatal ne fukk fa ñu mujj yile ci la guddi gu gën junne weer nekk leelatul qadri te kat fukki fan yile lu julli doon jaamu yàlla da ko war a ful ngir dajeeg bés boobule kenn xamul ban la ci waaye borom xam-xam yi nee nañu ci fukk fan yu mujj yi la nekk daj nga ko rek sa affaire baax ODG kafe wu ko organiser wu na bu baax teg programme ngir matal kooram ci mukaayam tey jile baax na imam Cheikh Mati Jean Ali Cissé la seeti ji comme xam na waayam jile ci la ko dalal ci saalam o DG foofi la toog te kurusam kilim bi du ëpp looloog loolu DG di xoogale ko rek teg lay tànk taal tele bi jàpp Al Jazeera Haj Ibrahim heure bi mel ne luy waaxu simileeg saa tisbaar jot DG moom ci nar a dal kon tisbaar jot na ay di muur muraake la yëguma dara ci koor o DG na muy waxee xelam imaam génn rek te ci loxo bi jumaa ji la ko jëme demee daa génn rekk naaj bi tàngal bopp bi mu joxe ngant <laughs> imaam damaa fàtte yeeslu maa ngi ñëw maa ngi ñëw dil ba dal na delluwaat na ca saal ba imaam dem dikk xaaj ibrahim <laughs> naka mooy noppi rek ci laa dégg gorka di la xam ma xam ne laataa ma yegg rek ñu sëlmal ba foofu jullee fii <laughs> imaam ah waa baax na macha allah julli mbooloo daal bokkut ak julli benn nit ne gën gi mu def ne salaatul jamaati afdalu min salaatil fadli bi sab'in wa ashrina daraja julli mbooloo ëppee na julli kenn nit ñaar fukk ak juróom ñaari daraja farlu ci dégg <laughs> kay dégg o xaaj ibrahim naka ñu toga tuuti rek mu daldi forbut ñu tek ci ay simili imam gennati takusan dg ar da ya, ngay demat yow nan nga sonna de kon julli juróomi ne ngay baagante la warna naa xoolal sama de nun lay gijee jumaa ji imaamul akbar Haj ibrahim ku julli mbolo ci juma day bok ci ñu sun borom di keral yowmal qiyaama te yoolug julli mbolo moy yoolug nga fanana julli guddigi lepp te kat da andi leer gu mat sekk yowmal qiyaama xam ne malaaka yi ñoo la koy seedeel DG <laughs> am na solo macha allah o xaaj ibrahim soo ko waaree rek mu daanu tax mu ànd ak imaam nara julli ji tàkkusaan daa génn buntu kër gi rek naaj bi jamaat ko mu fakkas solo xaw tuut weem teggeeku mu jël temps ci suuf imaam continue yoonam ne inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta o DG delluwaat na ca saal ba bandab tànkam yemu ca comme borom connaissance la daawoo woote rek hôpital Imam Assane Cissé docteur Ndiaye daal di ko fa yebal ab agent naka mu xool ko rek ñamal ko benn pikiir o oh, Haj Ibrahim Gaye noonu la nekkee toog ci salle bi rek noo dugg bër DG përëxëti <laughs> jàpp naa ko en ordre alhamdulilah yàlla duma seetaan o oh, DG félicitation ñu teg euh, ndogulu bakkane DG di muñ rek ne xol bi sedd na Haaj Ibrahim di waxtaan rek <laughs> li nga doon wax ci jullit mbooloo ceet su ma génnee fii tey doo ma ko tardeet du ba am solo waaye tàkkusaan bi sama pakka solo bi métti woon na dèjà jaay yebal na fi benn médecin pikiir na ma moo tax ma tane nii <laughs> taarakalla imaam Haj Ibrahim sa kooruk tey jile faw nga fayaat ko médecin bi la seet waroon na laa laaj nañu ndogu waaye su weeru koor gi jàllee da ngay fayaat bés dèj <laughs> fayaat bés imaam <laughs> Uras Info, Ribari Gao. Tewor Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Django du te notre force, le traitement de l'info.